Uh,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 والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى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 والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها да. Просто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 مسلم محسن سعيد فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كوله سرورا لمن يق... للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختار لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أهزى وأساء قال تعالى قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلام معطي السول وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والإخوان والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلب العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته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 الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاعبدوا الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى على ما جاد جاد به فيه للمنتقى عليه السلام آه، بجميع مقتفيه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 bis eh, bu tedd bi di bisub id eh, ñi ngi sant yalla mi ñu may ñu dugg ci weeru ramadaan eh, ci bismillah yalla may ñu ñu tal ko fekke ko ba joxe ko yalla nañu yàlla deppal dëppaleeg nam ko bëgge te nangul ñu Euh, euh, nangul ñu ko te nangul ñu bépp jaamu yàlla bu ñu def te jéggal nu rëcc-rëcc yi am yépp te lim wax ci ne ramadan dana koy jariñ léppit yàlla nañu ko ci yàlla defal hmm. defe naa ne kenn ku ne euh, faratal nañ ci moom euh, mu génne muurum koor te defe naa ne nañ ko santaane am nañ yaakaar ci ne ñëpp doxe joxe nañ ko noonu ndax euh, muurum koor moomu mooy defar yenn njuumte ak yenn rëcc-rëcc yi am ci biir koor gi kon joxe gi lu jiitu ñuy julli euh, luñ sàkku la te yaakaar nañ ne matale ngeen ko kon yàlla na yàlla na ko yàlla nangu hmm. koor doon loo xam ne euh, euh, niñ farataale niñ farataale koor ci ñun noon lañ ko faratale taale woon ci woon ci diine yi ñu jiite woon diine yi ñu jiite woon yépp moo xam julli la azaka aj màkka koor lu ci ne rekk niñ ko farataale ci ñun noonu lañu ko farataale ci ñoom euh, koor nag doon loo xamee ne mënees na cee weer la woo xam ne euh, képp koo xam ne lu baax dala raw loo bëgg a dabu ci weer wi boo farloo mën nga ko mën nga cee dabaatal lu baree bari ndax weer la woo xam ne euh, jëf ju baax da ci ëpp doole jëf ko feneen ndax wax nañ ne ko euh, julli naafila yi rek sax danañ yokk tiyaaba ji ba mu àgg ci daraja yi julli farata yi kon julli farata yi kon nan la war a tool kon euh, mu doon loo xamee ne kon ku ku ci farlu mën nga cee dabu lu bari lu la euh, rawoon ci aw yiw waaye ku ci farloot mën nga cee tàggatu ci jaamu yàlla weer loo ci tàggatu ci bëgg koo jëf wala bëgg koo bàyyi boo ci góorgóorloo te farlu ca suñ borom mën na la caa dimbale kon ci biir weeru koor lu ci lu ci teewoon nit ki mu koy jéem di ko def ci biir weeru koor yi bu bu weeru lëm ku ci tàggatu di ci def dara boo góor góorloo rek mën ca sax hmm. ku bëgg a bàyyi daraat weeru koor wi bu ñëwee occasion la mën nga ko cee bàyyi ndax ku mën a tàmbalee ca fajar ba jant so doo lekk doo naan lépp luy dog koor doo ko saña a def boo sukkandikoo ci loolu loo bëgg a bàyyi da ko war a mën a bàyyi euh, lu lu ñuy tere kon koor doon loo xam ne dana jàngale yërmande mën nañ cee jàng yërmande ndax nit ki euh, euh, bu xiiful rek bu xiiful rek du xam metetu xiif waaye nit ki bu xiifee rek xam ne loolu am na ñu ko yàlla nattoo euh, ñu dëkke ko kon bu la yàlla dénkee dara loolu dana la xiir ci nga mën a dimbali ni nga tane kon dana dana te yërmande daanaka euh, bu ko nit ki làmboo rek yu baree baree baree bari ci euh, tooñ bu muy def euh, jalgati di tooñ tooñ moroomam walla tooñ boroomam loolu dana ko ci dimbali am yërmande walla jël àqi moroomam bu ko defee koor it dana jàngale doylu hmm, te jamono jii defe naa ne jafe-jafe yu ci lu ci baree bari eh, ñàkk doyloo ko andi hmm, ndax eh, am na ci ñu ci ahlul kitaab ñu suñu borom wax ci alquran naan duribat alayhimu zillatu aynama foofu yàlla moo leen binde toroxteg bakkan toroxteg bakkan mooy ñàkk a doylu da gis koo xam ne bu doy alalal rek am na ko ba mu doy sëkk waaye loolu du ko doy yow mii sa dërëm bi nga yore teewul moom la teg bët euh, loolu nag torox mënu ko weesu waaw torox torox mënut a weesu am lu ne gàññ ba noppi euh, jàpp ne yow rek yaa war a am di di xëccoo ñu ñàkk ñi seen am am di leen xañ seen àq di leen andil ay jafe-jafe luñ euh, mel ne daal yow rek yaa war a am loolu nag day dàqoonteeg la day dàqoonteeg lislaam ndax lislaam lépp euh, lu jullit di yéene boppam lu muy yéene moroomam na xool ba xam loola bëgg na yéene na ko boppamam déet maanaam ab jullit daal daa war a doon koo xam ne ku doylu lay doon ku am yërmande lay doon waaye ku ku yéene ñépp am te kenn ku ne lu ko yàlla yé la ko yàlla warsagale nga yéene ko ab jullit noonu la war a mel koor dana jàngale jikko ju rafet te jikko ju rafet jafe-jafe yu baree bari yuy am ci diggante jullit ni wala ci diggante jullit ñi ñeneen loolu rek ko andi jikko yu bu jagoon rek euh, maanaam jafe-jafe yu baree bari dana wàññiku euh, ndax euh, koor nga xam ne ñi nayutoon sax ñi ñi ñi nayoon sax dañuy dañuy tabe mm-hmm. ñi nga xam ne sax daanaka duñ faral di joxe bu ñu amee dañuy dañ koy téye bu baax di ko denc bu baax xeeti ndaw kundaay ak ñooñu xam ne buñ luñ am moom danañ ko denc bu baax a baaxu koor sax danañ góorgóorlu li jéem a tabe kon euh, koor euh, jëf yu baax yi ngay euh, dabu di ko def tam bari tiyaaba lolu mën na la yobbu ci jikko ju rafet hmm. muy dimbalé am euh yéene sa morom jamm ndax eh, li nga warona eh, bo tewlo ci sa xel rek bo togon aw ñam ba mel na mu mel ba nopi wor do ko sañu a euh defe dang koy jox ñeneen loolu nag ku ko ku ko bàyyi xel doo doo siis mhm. doo siis doo goree kon kon ay jikko yu rafet lim ci jàngale te eh, jikko ju rafet mooy tax nit ñi xajonte kenn ku ne mën a muñal sa morom eh, kenn ku ne la nga wuuteeg sa morom nga mën koo jëlale te yam ca la la eh, mhm. jafe-jafe yu bari nag lu ko li ko andi mooy bu ku nekk jàppee ne li nga nekk rek mooy dëgg kenn ku ne lam nekk rek euh, euh, newul ci yoon loolu da ngay daal xatal diine te di diine euh, lu yaatu la mm-hmm. na ko yonente bi sallallahu alayhi wa waxe woon ak waa ji jóge woon ca kaw ga ñëw aajowoo tuur ndox rek tekki tubéy ji di tuur ndox bam neex ko ci biir jàkka ji saxaaba yi nar koo andil jafe-jafe mm-hmm. yonente bi sallallahu alayhi wa ne leen bàyyi leen ko mm-hmm. ñu ko bàyyee ma xamal ko ne ko fii mm-hmm. barab bu ñuy jaamoo yàlla la kenn du fi def lii wax ak moom wax ju dal ju teey waaye waaja teg ci ne comme fitna jiñ ko naroon a àndil rek tax mu ne ya yàlla maa ngi ñaanal maa ngi ñaan nga yërëm ma maa ngi Muhammad waaye nag bu ci boole kenn mm-hmm. Mm-hmm. léegi jafe-jafe ko naroon a àndil moo tax mu gisee ko noonu kon nga xam ne kon jikko ju rafet euh, euh, bokk na ca tere la nga war a tere waaye nag nga jaar ko ci yoon wa nga ko war a jaar ka ngay wax ki ngay waxal mu yëg ni jox nga ko cër waaye ki ngay digal wala ngay tere boo ko dee digal wala nga di ko tere te yëg ne yëg tam yëg ne joxoo ko cër rek du jariñu ca la nga koy wax mm-hmm. kon euh, loolu damay wax rek nekk kon wane ne lislaam lu yaatu la lu yaatu dënn la lu bari ci ay wuute yu ci am yërmande la ni mu nekk de mooy bu bu liy jafee ci yow lee yomb na ci yow mm-hmm. Mm-hmm. kon loo ci jafe mu baax ndax yonent bi lim jafe lépp yombuta yombuta jëfe lim jëfe jëfe ci dundam wax ko ci lu baax lépp yombuta matale mm-hmm. kon danga nga ca yem ca lenn keneen yem ca lenn rek euh, bu ko defee <coughs> yu baree bari wuute yoo xam ne buñ ko doon gisee noonu rek daanaka jafe-jafe yu bari dana euh, wàññiku hmm. ñu bañ a euh, xool rek euh, kee fee la féete jullit bi wala citoyen bi li ko war a ñor rek mooy ku nekk ci lu baax ku nekk ca lam mu war a ne ku nekk ci luy defar hmm. loolu rek ko war a ñor waaye waru koo ñor rek euh, ku féetewut ak man rek néewa ci lu baax loolu du maandu kon euh, ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax euh, ndax loolu dañ koy jànge ci koor jànge ci koor am jikko ju rafet mm-hmm. yonente bi sallallahu alayhi wa ci loolu la ko suñ borom tàgge mm-hmm. muy jikko ju rafet ndax budé am am am budé am am bo do bo ci day joxe mata mëna matalé ñëpp hmm budé xam xamit mëna mata am boko ko joxe mën nga baña matalé ñëpp waye jikko ju rafet moy lo xamé né ko jëflantel mu gis ci bopam ndax dana gis eh, manam respect bi nga koy jox Euh, di ko wax lu koy jariñ euh, di ko euh, defal lu koy jariñ lu ko amal njariñ di ko moytu lor doo ko lor ci sa làmmiñ doo ko lor ci sa sa sa sa benn cër mm-hmm. ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne al muslimu man salima al muslimu man man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi Juli deug deug moy ko ini, ne ni ñi mucc nañ ci <clears throat> ayu euh, lamiñam mm-hmm. ak ayu loxom mm-hmm. kon euh, ab euh dafa wara jox ñepp cër waye dafa wara lu baax rek nyor, ko wara ñor mm-hmm. képp ku nekk ci lu baax mu encourager la ca soñ la ca ku nek ci safaan ak fo meuna nek donte do julit sax euh mu waxante ko ci yow ci teggin ci anam go xamne ne dana xamne ne jox nga ko ciir te lu bax nga ko beugal digal ko loolu koko ko koo koo jëflante dana xam lang ko wax te dana ko nango jëfe eh, kep ku ne ci nek ci lu bax nga encourager ko ci donte du ab julit mm-hmm. ndax aduna bi defara tax ñu andi ñu fi mhm. kon ku nekk ci lu baax rek kooko jàppe ko na sa bopp mhm. encouragé ko ca mhm. donte sax bokk leen diine ndax lislaam defara ko tax a kon loolu def naa ne buñ ko bu ko ñëpp defoon rek e, jafe-jafe yu bare dan bare dana wàññiku kenn ku ne daal réew mi e, bul taxaw rek naan doxul doxul wala nga naan kilifa diine yi doxewuñ nangam wala kilifa àdduna yi doxewuñ nangam kenn ku ne nekkal fenn rek mhm. te nekkal fa ñëpp mhm. nekkal lu nekkal ci lu amal njariñ doomu aadama yi rek nekk ca te euh, maanaam fegal nit ñi say lor mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax naan euh, ki yées ci nit ñi mooy koo xam ne nit ñi dañ koy jox cër di ko teral ngir ragal ngir bëgg a mucc ci moom dañ koy jox cër di ko teral ngir bëgg a mucc ci moom ki ngay jox cër nag ngir bëgg a bëgg a mucc ci làmmiñam wala ci kiyam kooku cër boobu du yàlla taxul hmm. loolu loolu musiba la hmm. kon ab jullit daa war a doon koo xamee ne fu mu jub euh, nga sawar ci ay mbiram sawar ci ay doxalinam sawar ci nam comporté wu sëriñ ben ko wax ci nahju wa min saadati fata haythu qasad alla yarud alla yaruddahu fuadu zir rachad bokk na ci li wane ne ku la du ku rek ba xolam feneti wala euh, lennam di ko feneti maanaam ndax nit euh, bu melut nam war a mel bu la critiquewul ci ci kawit ci ci ci ci biiram euh, mën na laa critiqué mm-hmm. waaw kon jullit nit ki defar jikkoom defar ay doxaliinam ba ca na muy soloo na muy waxe lépp ba fu mu taxaw lu mu wax rek ñu rafet la ko lu mu jëf ñu rafet la ko loolu bokk na ci li wane ne kii ku nar a texe ngi ni kon euh, ab jullit noonu la war a def euh, wuute yu bari yoo xam ne euh, da ngay gis dara xew rek ku ci ne wax ca wax wax wax joo xam ne te lépp rek wax ja boo ko seetee ba seet day mel ne ràcc jame ci booram mm-hmm. Mm-hmm. ci misaal rek Euh, juma yi nga xam ne état bi ubbi na ko mm-hmm. loolu noonu rek la war a def mm-hmm. ndax euh, diine dafa yaatu mm-hmm. am na lu ñuy wax azima am na lu ñuy wax ruxsa azima euh, mooy loo xamee ne mën nga caa tegoo ay coona maanaam ay risque nga ca waaye yow yow jaral na la ko loolu loolu mi ngi mel ne ku ku tukki digënté bo xamné ne mën ngaa wàññi ba euh né damay wor ta ta ànd ak nag coono bu ne mën na fekk ci yoon wi nak loolu tax ñu yombalal la ko né la mën nga dog waye nga né man nga né nga né man fi sori soriwul comme légui jamono soppiku na auto ngay jël xëy bu nga né ay gilem nga daan war mhm. yoon wi risque bu ne mën ngaa ñàkk ndox mën ngaa bëgg a dog doo am loo doge yooyu jafe-jafe yooyu yëpp mën na laa gaar mën ngaa dem am gàllankoor yooyu yëpp coono yi ngi xalaat tax nga ne kon naa bañ a wor ñu ñu teggil la ko waaye mën ngaa eh, boo ko jëlee jël nga loo war a jël ñaar mas nañoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, Euh, ñaar ñaari saxaaba yi dañoo génnoon am ñu loon dogaale ne leen da ngeen weddi yàlla wala ñu rey leen kenn ka euh, ne moom du wedd yàlla kooku moom dafa jël azima loolu jël azima la ñu rey ko keneen ki ci des ñëw euh, kooku moom weddi ndax alxuraan moo ne من كفر بالله من بعد إيمانه إلا man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman maanaam koo xamee ne dañ laa forcé ci weddi te fekk yow sa xol weddi na sa xol lu gëm la mën ngaa weddi ci kaw ci ci ci saayir rek loolu ruxsa la waaw waaye kooka ba mu ñëwee nettali ko bi ne ko kee biñ biñ kii bi ñu weddiloo moom dane moom lu mën di du weddi kooku looloo doon dal xelab lu toll ne weddi yàlla moom it ay risque la looloo loolaa dal xelam am na ca droit ñu rey ko waaye bi mu ko nettalee yonent bi sallallahu alayhi wa da ko xamal ne ko euh, euh, ko euh, yow day lii nga def ni la ndax maanaam lu mel nii bu la wóoree ne sa gëm dëggu na ci kaw rek am nga sañ-sañ boobu hmm. waaye kale de moom ñooy bokk dëkk aj ñooy bokk dëkk àjjana ëllëg hmm. nga xam ne lenn lu ci ne rek eh, maanaam eh, lépp lu nit ki def te teg ko ci diine rek loola lu baax la hmm. eh, bu bu gannaaw marché yi nit ñee ngi ci mën a dox di di di di doxi seen yitte ca marché ba te yàqalu leen dara te dañu wóolu ne mën nañu moytu hmm. di dem ca banque ya hmm. ah wax dëgg kon bu dee ci jàkka jeet buñ ko sàmmontee ak noonu hmm. war war nañ koo mën a def sàmmonte ko nañ ko santaane kon euh, lislaam daal lu yaatu la euh, euh, te lu yaatale mbiram la xatalul yonent bi lim jëfe lu yaatu la lépp neexut a jëfe kenn ku ne da nga cay e, jëfe la nga man rek hmm. e, te bu liy jafe woon ci yow nga seet la yomb la nga xam ne jàpp ndal na nga jël ko ba tey lislaam lu yaatu la hmm. kenn du la génne ci diina ji hmm. kon e, ba jàpp ne ku àndut ak yow rek juum na loolu loolu ñàkk mhm. dégg diine la ñàkk dégg diine la ñàkk yaatu dënn la te lislaam lu yaatu dënn la mhm. kon ñu ngi eh, sant ñëpp di leen gërëm di jéggulu ci jataay bu yàgg bi ndax eh, naaj wi tàng na te xat na ñu ngi sant ñëpp di di leen gërëm di ñaan ñu fekke ko at yu baree bari te suñu borom nangul ñu jaamu yàlla yépp te balaa bii mu fi wàcce suñu borom jeexal ko E, bàyyi fi suñ kilifa yi yàlla yàggal leen fi liñ yaakaar ci diine ji ak liñ yaakaar ci ñoom ñëpp yàlla ko yàlla mottali ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di sant ñi ñi nga xam ne ñoo jàppandal baas yi bañ mën fee jullita na na jataay bi ni mu mën a yàggee loolu loolu rekk ko sabab mm-hmm. defe naa sëñ Aas Guèye sëñ sëñ Adama Guèye waaw ak sëñ Kader mm-hmm. di sant ñi fi daje ñëpp Louga TV waaw Louga TV média média Cheikh Ndiaye borom Louga Ndiaye moom it ñu ngi koy sant lu xew ci kër gi rek ñoom it ñëw jotal ko ba ñi ki munta kii mën cee jot ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di eh, fàttalikoot suñ magi taalibe yoo xam ne ñoo daan ànd euh, sëñ sëñ Aliou Guèye sëñ Ousmane Seck euh, sëñ mbay Seck kenn ku ne def euh, faatiha ak fukki lixlaas ak benn rek ñu yéene leen yool wi ñoo jullit ña fa dawlu ñëpp rek kenn ku ne jàng faatiha ak fukki xulwa ak benn ñu ñaanal ko mag yi taalibe yooyu daan ànd sëñ bépp jullit rek ak bépp sëriñ ñu fasaale ci bépp jullit ko bépp ci jërëjëf ñu bëgg bi xam na ko sëriñ bi def ci ay ñaan ñu ñaan suñu ñaanal jaam ñu ñaanal jullit yàlla yi ba feebar bi jóge ci àdduna bépp kon fépp faay yi dina taal xam sëriñ bi def ñaan ci coronavirus amin bakke amin bakke amin amin amin bakke amin bakke kon uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di jël si nuyoo bi sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des mourides di si teg sëñ Maama Mbàkke xalifa ak sëñ Mahamadou Murtada Mbàkke di si teg sëñ Mahamadou Mbàkke am na sëñ Murtada xam ne si comme ni ngeen ko waxee rek muy liggéey bii nga xam ne si waaye juróom bu tedd ba sëñ Mahamadou Murtada Mbàkke bu mu ko indee Louga tëkk fi yii daa bokkoon si mu ko santoon mu koy taxul mbokk jullit yi muy it yii ak jàng ak njàngale yii desee bokkoon muy fonk bu am solo si lislaam comme nag nu ma ko leeralee maam yaakaar naa maam ñëpp gis nañ seen bopp ndax moom lu ma woote mooy jikko ji rafet ci maanaam ab jullit boo si génnee jikko ji rafet rek dara des di fa te boo xool waxam yëpp tey jikko ji rafet la moom la si moom moom la tënk nu nit ñi war a àndee nu nit ñi war a nangulantee ndax na diine dafa yaatu ca diine tamit yaatu gi mu yaatu moo tax nit ku nekk da nga war a nangul nit ki lu mu doon ca teewal tamit li nga doon nga daal di ko gëm loolu mooy ab ab àndu rafet waaw mun ñoo bokk bokk alxuraan karim bokk benn suñu borom muy yàlla suñu borom bokk yent bi di di féete di féete Kaaba ga ñu ñëpp féetandoo fa ba pare ab jiyoo bëgg bëgg bëgg kii ak kaddu gi ñaa bëgg am moo tax si tënkam mooy nit ki war nga nangul nit ki li mu doon teewal tamit nga la nga doon nga doon sa ndax maam wuute moom day am si lu nekk kon boo xoolee tey foofu la gën a insisté si si xutbaam maam nit ba ab jullit war na ŋàññi moroom jullitam maam nit ki sax sa moroom jullit war naa kii sax nga fex kaa dajale defar ko ba mu baax moo moo gën a rafet nga koy tasaare tey booy xool dëgg-dëgg moom moom la mbokk jullit yi wax mbokk taalibi yëpp la sa toppaat comme euh, yàlla dogaloon kii bi wala organisation bi ñoo si nekk ak mbokk taalibe yi wax dëgg yàlla at bu jot nii na koy taxawee ca it wax dëgg yàlla sant nañ si baax a baax ndax ku gis rek maa ngi noo gisee bi ñuy julle ak bu njëkk bu rek nga xam ne am na yokkute kon loolu moom ñi ngi si sant ñi si ñi si jàpp ñëpp ak ñi si taxaw ñëpp la si nag mooy di sant média bi lii nga def nii wax dëgg yàlla lu lu rafet la ndax maa ku mel ne ay kàddu suñu wax nu Mbàkke mu koy jël nit ñi ko jël da koy yaatal dafa am solo si jullit yi ndax moom wax dëgg yàlla moom lu mu xam mooy lislaam moo tax contexte yi wax yëpp si lislaam lay wax kon loolaal lu nga a jàpp jàpp jàpp dëgg laal mooy mooy jikko ju rafet ca yonent sallallahu alayhi wasallam tàggoon ko si juddu tàggoon ko si dara si jikko ju rafet nañ ko tàggee kon jullit gi war ngaa xëntewoo ak loo ma def feex am jikko ji rafet mooy dum ko leen xam si maam muslim dëgg maanaam nit ñi duñ gaañ sab làmmiñ duñ gaañ sab loxo te loolu mooy mooy mooy dëgg dëgg dëgg ab julit te yàlla suñu borom tamit loolu dong mën a jàppale ko suuf muy jaami si ko suuf mooy nga leen suturaal leen jàppale leen dimbali kon loolu doona wax wax dëgg yàlla ñu ngi si sànni kàddu yi yow tool ak ma foofu waaw jërëjëf